di ci jiital suñu xarit suñu mbokk Cheikh Hamidou Baal fii ci Safinatu Najaat di nuyu mboolem suñu kilifa yi yëpp mboolem tariqa yi nga xam ni ñoo nekk ci Sénégal ak fudul Sénégal di nuyu سنو كليفة بشير الحاج بشير فتبارك الله يا حمني موي خليفة عمرية شيخ عمر الفوتي رضي الله تعالى عنه مولم جبوتو شيخ سيد الحاج مالك ياب جبوتو سنو مام سنو توبا مولم جلتي يب waaye canabaag jaasaan ak mboolem jullit yëpp ndax innamal muuminuuna ixwa fa aslixu bayna axawaykum wattaqu llaha laallakum turxamuun di nuyu it ñi nga xam ni waxtaan wi ñuy waxtaan ci ñoom lay jaar ñi nga xam ni ñoo nekk ci rajo bi fa tabaarakallahu ñoom ñëpp yal yàlla defal leen jàmm def ci réew mi jàmm defal nu sutura ah tey nag waxtaan wi nga xam ni moom la ñu war a waxtaane fa tabarakallahu ci suñu mbokk mu di imam Moussa moom moom fa tabarakallahu bi l'émission di ko waxtaane fii fa tabarakallahu na ko yàlla defal sutura defal ko xéewal defal ko mbooleem ñi nga xam ne ñoo fi taxaw dafay waxtaan ci wàllu yàlla ak mbooleem suñu mbokk yi nga xam ne ay ustaas lañu ci mbooleem rajo yëpp fa tabarakallahu ñuy jotal li nga xam ni moom la fi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daan jotal ndax yonent bi ci xajjatul widaa حجة الوداع دفا وحني لما يلا وخون ناكو جتولي جتل ناكو بتي اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا كنك ما دي السيدة اللوني دي السيدة اللوني ne lim ma waxoon ko jotal nit ñi te mooy ñu topp seen diine leen yàlla digal yëpp ci alquran wax naa leen ko maa ngi leen di seedeel loolu di ko seedeel yàlla waaye nag mbir mi du fi jóge ba yowmal kon balligu anni walaw aayatan ayyuha rasulu balligh ma unzila ilayka parce que yàlla moo ko wax ni ko yow yonent bi li ma la jox jotal ko waxal rek li ma la sant nga wax ko nit ñi waaye jubal nag nekkul ci sa loxo ci sama loxo man yàlla la nekk jotalal li ma la sant nga jotal ko nit ñi ku dégg jëfe bu ñëwee fekk fi la mu dégg jëfe ko te mooy ma fay ko may ko aljana yal na nu ko yàlla defal ku déggul it jëfewul yow bu ci sa yoon nekk yow joteer jotalal rek waaw balligh ma unzila ilayka min rabbika fa in lam tafaal fa ma ballagta risalata waaw nag wallahu yaasimuka min annaas kuy jotal nag fokk am ñoo xam ni dañu lay gàllankoor da xamul benn yonent boo xam ni da nga mës a woote ci wàllu yàlla lu dul am na ñu lay gàllankoor ma tax mu ni ko ñooñu mënuñu gàllankoor sama diine ji man yàlla ndax dafay alxaqu yaalu wala yucla alayhi wa munkiru alxaqi fi alxusraani wa ddiini ko jotalal rek ay jubal nag ak digg ak jëf kooku man maa koy def ci nit kon nag yal na yàlla may nu nu dégg ak topp mu wax ni nag ba tey it pour woote ci wàllu yàlla dafa am yoon yoon woowu moo di ud'u ila sabili rabbik bil xikmati wal mawidati alxasanati وجادلهم بالتي هي أحسن مواختني ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن أك ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم da nga woo nit ñi ci xikma xikma nag yombul ndax dafa am benn ci Quraysh am benn nit koo xam ni dafa dugg ci biir juma sayiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam bi mu ñëwee mu dem ci benn coin parce que boobu juma ji suuf rek la ay doj lañuy def ci biir jàkka ji ak yu suuf comme nag arab toujours bu ñu buggee gaanuwaay dañuy dem ci benn coin rek gas gaanuwaay loolu moom moo seen seen boobaay duus yi amul loolu la xam waaye mu dugg ci biir jumaa sallallahu alayhi wa sallam daal di commencé di eh, gaanuwaay saxaaba yi daal di ko song ko wax ni ko ko dàq ak sidi bi sallallahu alayhi wa ni bu ko rusloo bu def leen ko nànk kooku xikma la mu ni bàyyi leen ko bu ko rusloo ba mu pare yonent bi woo ko nànk ni ko place bii du place boo xam ni dañu fiy gaanuwaay place la boo xam ni pour jaamu yàlla la waaw kooku ci wàllu woote wàllu xikma la maanaam nit bu defee loo xam ni du noonu na nga xam nanga ko koy fexee ba ci wàllu xikma mu dañ ci loolu loolu la yonent bi sallallahu alayhi wa di jàngale ci wàllu comme ni ko yàlla waxee nag udu ila sabili rabbika bil xikmati lu ne dafa am xikma nit ku nekk fa nga koy jaare la rek looloo tax sallallahu alayhi wa sallam nekkoon nit koo xam ne am na benn nit boo xam ne dafa ñëw ci yonent bi commencé di lox lox yu métte métte métte métte defani dal yonenti bi comme pour yu jëkk yi daan day ay nit ak yooyu la mu ñëw rek tiit rek commencé di lox wa qala sallallahu alayhi wa sallam hawwin alayka defal nank defal nank dalal dalal dalal ya akhi falastu lastu bi malikin duma bur bur yo xamni dañuy lor nit ñi ku leen neex ñu rey ko ku leen neex ñu nangu la mu moom wala jabbaaran du ma criminel du du ma nit ku bon daal eh, innama ana ibnu imraatin min qurayshin kaanat taakulu alqadida nga ci suufe eh, suufe la rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam li ko yàlla may yëpp mu ni ko man doomu jigéen laa joo xam ni sama yaay dafa daan lekk xooñ <laughs> pour pour pour rek dalal waa ji ngir tawaaduihi mokk mokkaloo moom sallallahu alayhi wa sallam yooyu yëpp ci jàngale eh, daawa la yonent bi alayhi wa bokkoon na ci mbaaxam لا يدعوه أحد من صحابته إلا بلبيك saxaaba yi kenn mësu ko ci woo moom rasulillahi lu dul mu ni labbayk waaw yi naa la labbayk rek ngir jàngal nit ñi ni jullit dafa war a modeste wa kaana sallallahu alayhi wa sallam yajlisu xaytu intaha al majlis yenent bi bokkoon na ci tegginam ak baaxaayam te moom lañu yàlla royloo daawul jéggi mbooloo mu toog fu nit toog du leen jéggi mukk dafay toog ca mujj nit ñi ëlbatiku di ëlbatiku di xool ko ak jublu ci moom waye fambolo may yam mom moom rasulillahi fa lay toog yooyu yëpp boo jikko yoyu sallallahu alayhi wa sallam amé pour rek jàng ci mom mbollem ay jikkoom ñu roy ko yenen tibi sallallahu alayhi wa sallam bokkon ci jikkoom amon na ben gàtt goo xam ni kaana yashrabu labanaha bu daan naan meew te moom moo ko daan rattal boppam léeg-léeg pour wane ni rek modestie am na solo lool yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daan na daax yéreem di ñaw wallaay ndeysaan wa kaana laa yaqtau ala ahadin xadisahu nee na bu dee waxanteeg nit du dog mukk sa wax lu dul nga éggale xam am na ñoo xam ne boo dee waxanteeg ñoom rek ci saa si ñu gaas la dog mu yont bi daaw ko def lay bàyyi rek nga daal di wax di wax di wax mu la déglu ba nga jeexal mu doora lay tontu bokk na ci jikkoom moom rasulillahi sallallahu alayhi wa dee dox du gestu yaramam yëpp lay ëlbatiku ci yow yëpp di jàngal nit ñi teggin parce que euh, Seydi El Hadj Malick nee na bi amalin tasilu lil jinaani waaye bi adabin tasilu lirrahmaani nee na jëf yu baax yi ngay jëf ca mooy jaamu yàlla yeeg woor yeeg azaka yeeg dem màkk ci la yàlla di jaare ba dugal la aljana waaye teggin ku ko am ku ko amul doo gis yàlla maanaa doo egg ci yàlla sallallahu wa sallam nag jikkoom bokk na ca laa yaqtau ala ahadin du dog mukk nit buy wax lu dul nga wax ba noppi mu doro lay tontu teg teggin gaag xëy ba baag yar gaag fa tabaarakallahu wa kaana yaqbilu cadra almuctadiri nee na daan nangu moom rasulillahi ku ñëw indi ngantam man ko bëggoon naa ñëw waxtu sàngam ko waaye dama amoon ngant dama amoon ngant bëggoon naa ñëw ci waxtu sàngam waaye daal ndeysaan dama am ngant ndax dama amoon ku feebar wala kii ma dem ca bu ko defee mu nangul la bokkoon na ci jikko moom rasulullahi salallahu alayhi wa sallam wa kaana salallahu alayhi wa eh, mbërënt yonent bi saa daan na mërant waaye nag wala yaqulu illa alxaq daan na wax wax bu reelu ni ñi ree wala yooyu si mbóorante kaf-kaf lu noonu waaye du kaf mukk ba wax lu dul dëgg mas na wax benn jigéen bu màggat ni ko màggat du dem aljanna ndaw sa jooy lool yonent bi muuñ ni ko la yadxulul jannata ajuz màggat du dugg aljana ndekete li mu ci namm inna ahlal jannati abkar uruban atraban jigéen ñi nga xam ni dañu màggat yàlla war leen jugu dugal aljana daf leen defaa ñu nekk jànq bu dee góor la nga nekk si diggu waxamaane loolu mooy loolu la doon kafanteeg moom di ko wax ni ko jigéen màggat du dugg aljana màggat mi dégg ko mu daal di yooyu mu daal di muuñ ni ko waxuma la ko noonu màggat dana dem aljana waaye bu dee dem aljana kenn du ko yóbbu ca màggat ga dafay dañ koy def mu nekk jànq <laughs> ñoom ñaar ñëpp ñu àndandooree boo ko defee nag wa kaana nekk na sallallahu alayhi wa لا يجزئ بالسيئة السيئة آه. ولكن يعفو ويصفح خم قالوا تخ فمن عفا وأصلح فأجره على الله تأيد وأن تعفونك أقرب للتقوى إذا نعم. يعني أنت بدوك دف لبون مك مفايل لبون دف لي جيجل نحيا الله موحني كيف كو خمني دن لدف لبون nga jégale ko say yool maa la koy fayal sama bopp te nag am na ñoo xam ni sax dépassé nañu euh, fay euh, bañ la bañ la bañ la topp ca la nga la nga leen def waaye dañ ca booleek wa aslaha wa man afa wa aslaha fa ajruhu ala allah ñu def leen lu bon ba noppi nga rafetal ba noppi jëmaat ci moom yéwénal لا لورون يقو يب كوكو نك تي مكارم الاخلاق لا موتاخ كولا گندك موي كيلو اوب كيلو اوب جيكو جو باخ تي نك ا آه، جامونو بي ني تولو امنا ньо خامني دانيي فك صاح لو رافتول لو رافت ني ياق كو فوف <laughs> مو ملني آه، نك نان ني دلو وات دال سي يوننتي بي اك جوكوم bokk na ci jikko sallallahu alayhi wa sallam silman qataaka ku la dog yow nga jokk ko parce que fa man afa wa aslaha fa ajruhu ala allahi ajruhu ala allahi jar na lu ne parce que yàlla yoolam dafa tuutiwul te bés bu ne nga tooñ yàlla te bés bu ne nga bëgg yàlla jéggal la te bu la yàlla toppee nag te jéggalu la musiba dal la kon leptoo faytoo comme yow boo tooñee yàlla bés bu nekk yaa ngi naan la yàlla ci mbaaxaayam nee na danaa la jéggal ba noppi la nga defoon ci lu bon ma def ko lu baax ulaayika yubaddilu llahu sayyi'aatihim xasanaat ah ko defee nag fa man afa wa aslaha fa ajruhu ala allah moo tax yonent bi ni daal jikko bi gën a rëy ci jikko moo di ku la tooñ nga jéggal ko parce que bés bu ne nga tooñ yàlla te bu la yàlla jéggalu lay àdduna tukki أصافر لا يعني في دجاخ تنك ربنا إننا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين آه، إبليس بمو جخ جخل آدم الجنة آه، نيكو آه، نخكو نخدفك نيكو هل أدلك على شجرة الخلد ناخ دوما لا تكتال غرب جي لا يالا غرب جيغا خامني بوكو ليكي ريك ساخ تي الجنة موم مسنا الجنة بنوبي بوكوتو في ген موم ادم ادم آه، ابليس دفري خل نيكو نيغي يالا تي بوبوم بو جيسه موني لا آه، بو ليك تي غرب دا فا دا فا بوغو ريك nga bañ génd te boo ko lekkee rek maanaam eh, eh, dafa ci garab gi hmm. te boo ko lekkee rek doo génn ci garab gi <laughs> gis nga hal adulluka ndax du mën a tegtal ala shajaratil xuldi ci garab goo xam ne boo ko lekkee rek sax ci aljanna te bu ko lekkee rek génn aljanna loolu tax ñu ne sa noon bul nangu mu digal la hmm. parce que bu la rek nga dégg digal ba bawatuule musiba dal la nee na bu ko defee nag eh, yàlla sànni ko baat ci barke sayiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam eh, rabbana innana zalamna maa tooñ sama bopp xam nga tooñ kenn du ko delloo yàlla te parce que Adama yàlla xamoon na ni dana génn aljana parce que bu génnulee aljana wàcc ci suuf yonent bi du ñëw te fokk yonent bi ñëw waaye nag xikma loolu xikma la aadama dañu wax am ñu wax ni sax bi mu gisee garab gi bi mu gisee lawxul mahfuus fekk yàlla bindoon na ca xalima ga ni aadama dana lekk ci garab ga moom dafa gaaw sax lekk ci garab ga parce que yàlla bindoon na ci lawxul mahfuus li xew yépp te boobu ñëw ñëwagul ko defee loolu ci wàllu xikma la bu ko defee nag Eh, ñu bëgg daal yenent bi bugg daal ak yàlla ku la tooñ nga jéggal ko te moo di eh, eh, yenent bi dafa wax ni xude ni ngeen ni ngeen di jéggale sin man xataaka ku dog nga jokk ku la dog nga ko mm-hmm. wa afu am man zalamaka ku la tooñ nga jéggal ko mm-hmm. waaw وأحسن إلى من أساء إليك <laughs> وأحسن رفتل إلى من أساءك كو خمني بس بونك لي نياوال دي لا وخال لو بون يو ديكو وخال لو باخ دا وأحسن إلى من أساء إليك وقول الحق ولو على نفسك نين نك دغ موم فمو لا فك نين نانكوي واخ دونتي صح دغ كي daf lay gaañ yonent bi nee na sallallahu alayhi wa sallam nee na bokk na ci martir nga dee ci jihaad nga fekk buur bu dëng te mu wóor la ni boo ko waxee dëgg mu rey la neena nga wax ko dëgg mu rey la nee na dee nga ci martir aljana nga jëm ku dëng nga fexe ba wax ko dëgg ba mu rey la ca nee na ah aljana nga jëm martir bu ko defee na fa man afa wa aslaha fa ajru ala allah eh, bu ko defee nag wa ma arsalnaaka illa rahmatan lil alamina yëpp dafa dugg ci wa ma arsalnaaka illa rahmatan lil alamin ba gisee ñu naan la yonent bi nee jégal ku la jégal ak kooku lay yërëm moo laa wax ni la jégalal كل واحد لو بون واخ باخ كولا ديف لو بون ديف باخ يويو يرمنا لا دافا بوغو ام يرمنا يالله يوم القيامه تا موي غا دم موتاخ فبما رحمه من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر فاذا عزمت فتوكل على الله ومن يتوكل على الله هو حسبه إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم وتوكل على الحي الذي لا يموت عينك يمول نك إن التوكل واد ليس يسلكه لميكم may تيويت البرم جليا إن توكل كل واد ليس يسلكه لميكم المنجا تيات البرام جليا إن توك كل واد ليس يسلكه لميكم المنجا تيات البرام جليا إن تواكل واد ليس يسلكه إن تواكل واد ليس يسلكه إن تواكل واد ليس يسلكه لميكم المعينجا تيبت البرام جليا إن تواكل واد ليس يسلكه lu ko xoolu may ku mën tey weetal borom julli nee na inna tawakkula moom sëñ Babacar wakkilu ci yàlla waa din xur la bu mel ne que xuru Ibrahima bañ ko doon dugal ca safara sa lay sa yes lu ko kenn du ca dugg mukk lu may ko mën tey weetal borom julli ibrahima dafa wéetal borom julli ya ba jibril ñëw ni ko xanaa du moo dem wax sa yàlla ya sa xarit ba ni ko ñu ngi lay dugal mën a xam gi mu xam ni maa ngi fay dugg doy na ma pour nga dem ci moom di ko ko wax ndax bu fekkee ni yow de yaa ko koy wax nag kon te wëkkul bi dafay dañ moo tax lu may ku mën muñ gë tey wéetal borom julli ya kon nag man yatawakkal ala allahi nag fa huwa xasbuhu moo tax qul naa yaa naaru kuuni به قال العلي يا نار كوني بردا وسلاما على ابراهيم اي وكيل بنك موجد دفاي جكيل بنوبي نك يالا داديكو مسل تي درجه جيكو بو مجكو وكيل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم به تي درجه سيدنا محمد قال يا نار كوني بردا وسلاما غايبنا تي درجه صلى الله عليه وسلم ba tey bokkul ak inna raja ala fi waadin kaza tamaon de tegtaloo dara dar yaakaar dajeeg alaye bu ko defee nag si suñ Babacar si woyam boobu li dafa yaatoo yaatu bu nga xam ne fa tabaarakallahu hmm. inna raja ala fi inna raja al fi waadin kaza tamaan del tegtaloo dara dara yaakaar boo dee xemmem dem aljana mhm. wala nga xemmem am am ngërëmal yàlla mhm. te war ridwaan min akbar mhm. fokk da ngay tegtaloo dara li ngay tegtaloo mooy ngay julli sellte mbaax waaye bëgg na aljana doo julli doo wor doo asaka doo toppatoo say mbokk doo dimbale kenn ku la tooñ ko jéggal te bu te bu nga bëgg yaakaar aljana foog nga am loo tegtaloo ba noppi <laughs> waaw waaye yaakaar rek. ba ci ci alal sax. ba ci alal sax foog nga liggéeyi. tegtaloo loo xam ne bu alal ji ñëwee ñu mhm. ko defee lépp looy def rek dafa am looy teg ba ci yërmande sax. Mhm. inna rahmatallahi qaribun min al muhsinin. waaw bala ngay dafa wax ni danga ko jege rek. Mhm. waaw waxul dana la ko qaribun. إن رحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون إن أنا جاكنا موم يرمني تكت كو يرمن كان كان لا يرمن لا يرحم لا يرحم ارحموا من في الأرض يرحم كنا تكتلو يرمني يرمل نتني تكتلو يالي يرمل يرمل نتني نخ كدو يرم نتني كان لا يرم من لا يرحم لا يرحم ارحموا من في الأرض وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين مسكي ko defee nag yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yërmande googu mu am moo tax moom yàlla di ko yërëm yërëmale nu ñu ñëpp ko defee nag lu ne dafa am loo koy tegtaloo loo bëgg daal da ngay am looy jëkk def ba noppi doora doora doora doora doora dooraa nag doo dooraa nag di yaakaar am loolu waaw man kaana za xirfatin fal yuxyiha abadan moo gën di dem di tuumaal yàlla man kaana daa xirfatin képp koo am liggéey ak liggéey bu mu mënti doon fal yuxyiha na nga ko dundal lan mooy dundal liggéey mooy waxtu woo bu jotee na nga dem bul manqué waxtu parce que lay fay te liggéeyiloo ko loolu xaq xam loo bari ne kuy fayu te fekk ne li nga war fayu fayoo loo ko kon nag fal yu xayihaa na nga dundal mhm. jëmmi liggéey bi mhm. ci boo fayoo nga yeyoo ko te it nag na ko defe na la ko borom na la ko sante mhm. bu ci yàq dara te si kenn corrompre kaay bala nga may defar ma fay la nangam wala nga jox ma nangam yow koy yemal ci sa liñ lay fay rek xaw ma corruption la corruption <laughs> yooyu yëpp bokk ci li dundal liy dundal euh, li nga ñaq <laughs> te it nag bokk na ci it euh, waxtu yi nga war a dem nga dem ca <laughs> nga jaarale ko nag ci loo xam ni yow alal ji lew na la Seydi Haaji Malick bi taalibe yi ñëwee du bëgg ñam wi mu niinal ko dafa daan lekk ñam woo xam ni ñam ba daanaka daal euh, laaxum bu amul suukar wala yu deme noonu boo defee na di sànq di di di di di di di jàmbat taalibe ah, ñam bi kii mun a lew na de ah, ñam bi lew na de ndax boo dee lekk loo xam ni euh, lekk gi daganul sa ñaan du nangu malbasuhu xaraam wa akluhu xaraamun fa annaa yustajaabu ko defee nag jëmmi loolu la sëñ Babacar Si di mm-hmm. moo tax woy woowule benn benn woy bu nekk mm-hmm. nit mën na ci jëriñu ci fa tabarakallahu yal na nu leen yàlla fayal eh, Ceerno ñu ngi koy gërëm di ko sant mm-hmm. fa tabarakallahu xam naa ni mi ngi préparé euh, ziyaaram ba fële ca dëkk ba alwaar euh, yal alwaar nag jar na dem ndax ku mel ne Umarul Fuuti yu kooku ko defal loo xam ne rangu yonent ci wàllu jihaad waaw umarun ammara alquluba bi hadyi min allahi al aliyi al jalili taal na xarban wa taala fihimu jiddan ka bani allaati maa ko wax umarun amara alquluba bihadi min allahi alaliyi aljalili taal na xarban wa taala fihimu jiddan ka bani allaati saabiran sunniyi loolu bu ñu sañoon cerno teew dégg loolu. wallaay ndeysaan. bu ñu sañoon Thierno teew. Ah. Thierno Thierno dégg loolu nga wax ci Cheikh Al Hadj Umar. al mel ne que nga nga firil nu ko. wallaay ndeysaan. mu nekk nga firil nga firil nu ko ci kanamam. wallaay ndeysaan. <laughs> ci loolu. moom nga wax ci. waaw ba walla walla eh, xaw lu bari nag waaye ñaari bayit yi rek. لا شيء كذا آه إن شاء الله بوكو كنيو آه بحني بني بني ولك إن شاء الله إن شاء الله تعالى بوكو ده فينك نوري سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ترياتنك نيم في بايكم أبو بكر الصديق أكسيدنا عمر أكسيدنا علي أكسيدنا عثمان نيو نيو نيو دون saxaaba rasulillahi kenn ku ci nekk nag ak sa qualité bu la yàlla defal mhm. eh, ñooñu buñ fi jógee it topp ba suñu sëriñ yu mag yi mhm. mu di cheikhana ahmed tijaani ak cheikh abdul qadir ak mbooleem suñu kilifa yi nekk fi شيخ عمر الفوتي رضي الله تعالى عنه يعني يلا تاتي سين بركة عمر عمر القلوب بهدي من الله العلي الجليل تالنا حربا وطال فيهم جدا كبني علات صابرا سني الله اكبر لا دفنتي مولانا شيخ عمر الفوتي رضي الله تعالى عنه عمر عمر القلوب بهدي من الله العلي الجليل تعالنا حربا وطال فيهم جدا كبني علات صابرا سني الله اكبر لان مام عمر الفوتي رضي الله تعالى باتي عمر موي كو خمني آه، دندنا تي والو يرم waaye ruux ba it dund na moom mi dund nag bëgg nit ñi dund dund yaram waaye seen ruux dund ni mu dunde ci yaram dund ruuxit noonu la fexe ba ñi ko topp mu fexe ba ñu dund ci yaram bañ dund dund bahima waaye ñu fexe ba seen ruuxit dund umarun amara alquluba bi hadid min allahi dundal na xol yi ci jubu sallallahu alayhi ak jubu yàlla waaye yonent bi dafa daan jubal haadina nubuwatahu moom dafa daan jubal waaye moom tamit maam Umarul Fuuti dafa daan jubal nit ñi te xare gëm naa yàlla waaye xare ak jaasi kooku du ñëpp du ñoo dugg de xam naa bu dellu si woon tey jii ni ay ànd ñu xare dana am ñu dem waaye dana am ñu bare ñu demul kon ku gëm yàlla la parce que njaay si moom neexalul kenn guddeeg bëccëg maa ngi dégg Cheikhna Ahmed Tidiane si moo wax ni dafa dem Louga sëriñ Babacar yebal ko ci suñu góor ga mu ñëw rek ni ko daal ah tey dafa tàng loolu mu ni ko bul tas sama yaakaar ndax sa maam Umarul Fuuti daan nañ ko wër weer wala moom tam daan na wër weer ay nit te moo gënoon tàng tàng bii ngay wax fuuf te daan na toog du am lu mu naan du mu am lu mu lekk xoolul kooku yàlla daf ko may moo dundal xol yi nag ci yàlla xoolal rek euh, doomam bi nekkoon fii ci dakaar te ñu sulli ko na mu meloon mu mel. seetam Thierno Mountaga Ba. seetam. mooy bàyyi Thierno Bachir Tall. mu ngoog fii ci dakaar ñu. te ba mu mu génne àdduna kañ la. ay at te kañ lañ ko suuli. 1985. Euh, te ne te ne Malick Malick Kane ba meloon mel noonu la mel. ñu yóbbu ko eh, eh, suuli ko ti eh, kile Louga Louga te am na ñoo xam ni suuf mënul lekk seen yaram te kat du Umar lu Fuuti moom mais sëtam la ndax Muntaga mhm. doomu Baaxa mhm. Baaxa doomu Cheikh Umar xoolal loolu waaw ki nga xam ne yow kooku nag mooy ga mhm. moo jur Thierno Bachir xalifa alham alhamd kon nag nag ñu ngi gën a nag am yaakaar ku am sa sëriñ hmm. ñu suul ko hmm. ay ati ati ati at ñu sulli ko hmm. nekk yére ba dara yàqu ca te loolu danoon na asxaabu ahlul kahfi wa labisu fi kahfihim salaasu miati sinina wasdaadu tisaan qul illahu aalamu bi iddatihim maa yaalamuhumu illa qalilan eh, ibnu abbas nee na qalil ga ca سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة وسادسهم كلبهم ريما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل تاني نك فت يلا ريلن ويا بنيو ديك نيو ملون ولا مل <laughs> نحن نتو يلا بير بيدم الجنة سوف دلك سيرم بتي مولانا الشيخ ابو العباس رضي الله عنه ba Cheikhuna Cheikhuna Ahmed Cheikhuna Ahmed Tijani sallallahu alayhi wa sallam yii yëpp nag dafa war a tax ñun ñi nu am ñu gën a am yaakaar del tegtaloo dara door yaakaar door yaakaar kon ñun fa tabarakallahu fi ñu tegtaloo fii la fi ñu tegtaloo fan la ndax gis nañu it ni tax ñu tegtaloo ci ñoom ñu roy leen kon nag ñu ngi ñaan yàlla Euh, ndegam sëtam moom la ñu suul fii génne ko mu mel na mu meloon est-ce que maam ja te maam ji nag la ñu war a dem ziyaare ji te moom nee na li anna li xayaatan bila ruuxin waaw wa mawtan bila ramsi wallaay ndeysaan wallaay wallaay wallaay a koo xam ne shuhadaa u axyaaun inda rabbihim yurzaquun waaw kon nag ki ñu am dëgg-dëgg wax dëgg yàlla li ñu tegtaloo ci zaahir rek ñu gis ko daal na xel te jar na dem xalwaar. jar na dem xalwaar kon nag ku demul arwaar daal ah dem <laughs> de ñu ngi préparé. ah tabaarakallah fi ngay fi ngay uh-huh. fi ngay egg foofu nag. Uh-huh. kilifa gu tedd gi dugg waaw ah, ci la suñu kilifa gi dellu si ñëw tabaarakallahu maa ko ñaan nag waaye am na. leneen lu mu nekkoon. ok ma ne ko donte ñetti baat la sax. Hmm. di ko ci tegaat. waaw ah. doomi réew mi. Ah. waaw yi. wa jariñoo ko. bu dugg yu nekk fii ci xalwaar gi nga waxe yii te xalwaar nekk le premier mai insha allahu taala ñu dalal Thierno Cheikh Alhaaj Imam Cheikh Alhaaj Ahmed Tijani ak mboolem ñi leen di déglu ci seeni émission jëkkandoo jàmm ci gën asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu waaleykum asalaam wa rahmatullahi taala di ñaan yàlla subhaanahu wa taala bii nuyoo bu barkeel nuyoo bu bàyyi ko ci yàlla dem ci jaam yi di leen gunge bu ëllëg yowmal qiyaamati mu nekkee nuyoo waa ajana yàlla na ko yàlla defal mooy assalaamu wa rahmatu wal barakatu min allahi alayna jamian macha allah bëggum woon ñëw ndax dem bëggoon toog fale ci ruq bi rek di lijjanti li may lijjanti di déglu seeni waxtaan di am ci ay mbind bu bees ndax kenn ku ne ci yéen ci li nga wax rek mooy nit dañoo xaajowoo ñett benn bi day yër di wax mu yër téeram wax li ñu bind ci téere yi ak ñi nga xam ne dañoo yëg di wax ñooñu dañoo wax ci ilhaamu min allah subhanahu wa taala ak yenkawal bi nga xam ne moom la leen jagleel am ñi nga xam ne nag ñoo gën a foor mooy dañoo yër di yëg di wax dañuy wax ci mbind mi mais am na ay sew-sew yi nga xam ne yàlla dexeñ na ko ci biir mbind yi yàlla xamal leen ko ñoom di ko sotti ci xolu jaam yi su ngeen gisee suñu téere tariqa bi moo Cheikh Ahmad Tidiane radi sharif radiallahu taala anhu daawoon na firi benn aaya weer mbaa ñetti weer mbaa at wallaay wallaay benn aaya rek. wallaay dëgg la dëgg la dëgg la. loolu nag beneen mbir la. wante nag comme ni nga ko waxee suñu mag ñu baax ñi nga xam ne ñoo nekk suñu kanam yàlla boole nañu ci ñoom ñu nekk suñu wasiila dem ci Seydina Cheikh radiallahu taala anhu ñooñu doon na ci Seydina Cheikh yëg-yëg boobu. macha allah ñoom ñoom tamit. Mm. li nga wax ne. waaxir mm. bi ñuy won rek. Mm. doy na yaakaar. wallaay wallaay wallaay. ndax wa innahu id araada allahu nashatana. abaana min nuurihi nuuran nabil alamin. ba bi jeex. kenn mënu ko jeexal. am na waaxir mooy mbind mi. am na baatin. am na baatinul baatini am na baatinu baatinul baatini ila ma maa laa nihayata lahu min al fuyudaati al ilahiyati wal mabahi wal mawahib laduniyati wallahi wallahi wallahi loolu moo tax képp ku gàmmu rek di ci wax kem yëg-yëgam ak dowxam ci téere bi mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. moom du sappi déedéet ndax yonent bi yàlla yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam du sappi suñu de suñu yemoon ci foofu rek macha allah yaakaaru na suñu demee ci taysiir boobu tamit beneen mbir la beneen mbir la kooku Seydi Cheikh Alxaaj Malik Si rek la ñu jël ci benn téeram walla ñaari téeram mm-hmm. mu lamba daj mboolem xam-xamu góoru yàlla yi waahiran wa baatinan shariatan wa tariqatan wa xaqiqatan loolu sant yàlla la kon ñu ngi nuyu mboolem ki Cheikh Alhaaj Imaam mm-hmm. nuyu mm-hmm. di ci jiital suñu sëriñ suñu wayjur di Mawlana Cheikh Mouhamadul Bachir Tall ak mboolem ñi mu njaboote ci kër Mawlana Cheikh Alhaji Omar Fouti radiyallaahu taala anhu ak yeneen mbokkam xalifa diine yi ak seeni taalibi ak képp ki nga xam def aju ci ñoom li nga wax nag ci xalwaar jar naa dem wante jar naa dund jar naa dem ndax ki ñu koy askane mooy Mawlana Cheikh Alhaji Omar Fouti radiyallaahu taala anhu jar naa dund ndax moom dafa gën a si te àddina ci ëllëg si nekk wéeru koor te wéeru koor am na ay palier yu bare bare bu ci nekk te xam naa ne da nga ciy ñëw ndax xam naa ne alhamdulilahi rabbil alamin yow ak imam Moussa yëpp macha allah yàlla may na la ci yéen boo macha allah yàlla xeeb dolli mooy صوم العوام صوم الخواص وصوم خواص الخواص كور نيتو سامبل كيغا خامني دغنا باتو شهاده الله لا اله الا الله وان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بير باتو يويو امنا بن بونك بني تودي كور موغي وور دونتي كورم ci ci ñàkk lekk mhm. mbaa ñàkk naan bëccëg wër koor yëpp mhm. lay jëfandikoo lu am njëriñ la mhm. lu am solo la ndax wéy na ci ndigalu yàlla nangu na jooxee farata bi nga xam ne yàlla faratal la ci kaw wante am na beneen koor moo gën a foor ci kooram googu kese mooy sawmul xawaas mooy ñi nga xam ne ne dañoo am jagle bi leen yàlla jagleel ci koor gi ñoom dañoo duñu lekk ci wéru koor ñu naan ci weeru koor mais en même temps seen cër yëpp dañuy woor comme nu seen biir ak seeni gémmiñu woore bopp day bët day woor comme ni nga ko waxee keroog nopp day woor loxo day woor tànk day woor làmmiñ day woor mm-hmm. ñu dominer seen cër yëpp mm-hmm. womat leen mm-hmm. ci koor buñ pour ñu gën a mën a am yàlla ñooñu ñee gën a am avancement ci ñële ñi nga xam ne dañooy eh, def al imsaaku rek an taami wa sharab ñii ñoo gën a fort mais am na ñeneen tam ñoo gën a foor ñooñu ñi gën a foor ñooñu mooy ñi nga xam ne ñi nga xam ne seen xol seen seen mooy xaw xawaasul xawaas yi ñi nga xam ne ne koor nañu kooru awaam bi mooy du ñu lekk du ñu naan ñu oor kooru xawaas bi mooy cër yëpp ñu woor ñu am beneen bi nga xam ne mooy ko koor woor xol an jamii qad xalaa fi qulubihim wala an jamii si wallahi subhana taala dañoo dënd lépp lu yàlla ci seen biir xol nu feesal foofu yàlla ba mu fees mooy maqaamul xulla maqaam ibrahim man daxalahu kaana aminan ki nga xam ne ne àgg nga foofu am nga yaakaar mooy sa xol woor mboolem li yàlla yàlla tere bañ nga fiisal foofu feesal foofu yàlla mooy dikkar yéeg xalaatu yàlla ak tawxiid ak mboolem li nga xam ne ne yàlla santaane na ko nga duyal ko ci def ko ci xol bi ba mu fees dell dell dell am na ñi nga xam ne nag ñoo gën a am ay beneen palier mooy alladina hum daayimuuna sa fi sawmi dawaaman ñoom saa su ne ñu ngi woor wéeru koor budul wéeru koor ñoom ñoo gën am solo ndax su fekkente ne 30 jours ngay woor baax na mhm. wante am na beneen bu nga xam ne moo gën a baax mooy sa dund yëpp nga def ko mooy koor donte yaa ngi lekk yaa ngi naan mais lépp lu koor tere woon yaa ngi ko def mais la ci gën a am solo mhm. loolu nga def ko ci sa bopp am na solo mhm. mais nga partagé ko ak ñeneen yi moo gën am solo mooy al muslimu man salima al muslimuna min lisaanihi wa yadihi sa bët koor même bu dul wéeru koor ngir xool xool nit ki boo nit ki am ci loraange bul wax ci moom bu li koy lor bul def ci moom li koy wor bul dox dem ci moom li koy wor li koy lor loolu mooy wéeru koor bu baax loolu nag li koy gën a yow jàppale nit ki mooy tuub ci lépp li nga xam ne yaa ngi ko doon def te yow nga évaluer sa bopp bu pare après fas yéene dootoo ci dellu mais am ne en même temps Uh, am jikku yërmande am jikku baalaate ndax soo bëggee ñu baal la dangay ngay baalaate soo bëggee ñu yërëm la da ngay yërëm arrahimuna yarhamuhumur rahman irhamu man fi ard yarhamku man fi sama kon nag wéeru koor gisu ñëwee ñëpp dañoo war a baalante ak ma bañ a war a yem ci lammiñ mm-hmm. ndax koo gis rek baal ma ak baal naa la mm-hmm. baal ma ak baal naa la day bëri macha allah. Mhm. wante nag na def jeexatal. Mhm. boo ci jëf yi. Mhm. même agresseurs yi. dañoo waroon baalante ak ak ni ñu leen agressé. dangay agressé nit fii te xamoo ko ci car rapide ngeen daje. wala ci tali ngeen daje mais nga baalu ko ak. noo koy baalu ak mooy tuub rëccu. ñaan yàlla njëggal ñaan yàlla diw mi ma jëloon mbiram wala diw mi ma agressé woon wala diw mi ma defoon nangam nangam yal na ma yàlla baar baal baal ko rëccu naa bis tey dootuma ko defati attaib min adambi ka man laa ku tuub ci bakkaar dafa mel amutoo benn bakkaar day dem dem ba ñooñu yi sanguwaat sangu dexu njëggal loolu am na solo ci ñoom mhm. ñi nga xam ne dag du ñu agresseur mhm. mais dañu agresseur lammiñ wala agresseur cër mhm. même agresseur jàng jàng bi ñuy jàng ni am na ci agression waaw dëgg la man kay xaw ma ministre de l'intérieur amoon na benn jamono am na benn général bi nekkoon ministre de l'intérieur dafa instauré woon su onze heures jotee mboolem yuuxu yi ñuy yuuxu ci dëkk bi bu yuuxu bu jëm ci yàlla la mhm. wala bu dee yuuxu bu jëm ci àddina la nañu ko arrêté mhm. ku dul ko am autorisation mhm. ndax dangay def fi jàng yuuxu fii ci kaw nit yi bu bët set léegi-léeg sax da fekk benn nit rek moo nekk foofu di am micro am di taal vidéo ko te mu nelaw boole ci soo dégloo nga foog ne ne mbooleem adduna bi yëpp ñu ngi foofu def fekk kenn nekku foofu laa yu'minu ahadukum man am na sa dëkkoonde mu ngi sa wet dafa feebar dem ci médecin jox ko garab pour mu nelaw yow nga tere ko nelaw ci loro fa euh, lale jàng la wante tooñaa nga bi nga ko tooñ te munoo ko jéggalu bàkkaar la loolu lay wax keroog ma nga wax maa ngi wax ak benn nit ci mbàllu cigarette. ma ne cigarette ñi bëgg a jëfandikoo ñu ne yaxam ñëwul ci alquran. ma ne ko waaw yaxam ñëwul ci alquran wante yaxam bu gën a rëy moo ñëw ci alquran moo gën a nekk danger. mooy tooñ. tooñ ñëw na ci alquran. نيونا تي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا الظلمة إن الظلمة ظلمات إن الظلمة ظلمات يوم القيامة كون سيغاريت بيغا غيسني مو غين راغلو مو غين دانجي ام دانجي تي مبولم لي لو بري سي لي نيالا لي ني جيفديكو باسكو سو خوله باكي بي 20 سيغاريت مو غي نك ñaar fukk doom moo ci nekk doom boo taal au minimum da ngay tooñ fukki nit walla nga tooñ juróomi nit mm-hmm. nu mu bon bon da ngay tooñ ñaari nit parce que soo fumé saxaar bi mënoo ko maîtriser doo xam ne saxaar yemal ci man mais kii ñi nekk sa côté yëpp saxaar bi dana dugg seen bakkan mm-hmm. ñoom ñu meree mu naqari leen duñu mën a wax ndax soo waxee mën nga mën nga réa def réaction bi nga xam ne day nekk réaction négative mm-hmm. yow tamit defoo ko muy dara mm-hmm. pour wax leen ne baal leen màq <laughs> oh, tooñ nga leen te li ñuy gën a bon ci àddina mooy bàkkaar bi nit ki xeeb mm-hmm. bàkkaar bi nga xeeb ba nit kiy xeeb du tuub du jéggalu léegi su fekkente ne yàlla dogal na nit ki taal benn cigarette mm. ñetti nit mu ngi ci wetam mm-hmm. walla ñaari nit mm-hmm. tooñ na ñaari nit kooku mm-hmm. mu taalaat beneen doomu cigarette mu mu tooñ ñaari nit ba mu taal vingt vingt cigarette yooyu yëpp ñaat ne la tooñ tooñ na lu minimum ñeent fukki nit so boobu paquet jeex nga jëlaat beneen paquet nga tooñ ñeent fukki nit nga jëlaat beneen paquet nga tooñ beneen ñeent fukki nit nga nekk ci at chaque jour au minimum da ngay tooñ ñeent fukki nit ñeent fukki nit multiplié par trois cent soixante cinq jours ñaata bàkkaar nga am ñaata nit ngay layoo ëllëg yamal xiyaamati ci tooñ boobu boobu benn côté la mais dafa am sax bu ma si boobu benn côté la ba da nga danaa la jox kaddu gi léegi beneen côté gi moo gën encore dangereux ndax kuy cigarette danga nga jënd feebar ko jënde feebar dafa jënd dee ku jënd dee dafa xaru ku xaru dugg aljana dëgg la dëgg la même ñi defar cigarette dañ ci bind si dangereux waaw foofu lay jamoon nag dañu bind ci suuf am na ay mbir bi nga xam ne ce n'est pas bon pour la mm-hmm. ah, santé léegi nag gis nga ne se pas bon pour la santé ki ko defar moom mu ngi lay jaay mu ne ma ah defal li wante baaxul ci yow de uh-huh. nga ne man li baaxul ci man moom laa bëgg moom laay jël kon nag lu baaxul ci yow mm. defal lay jeexata defal lay yóbbu ci feebar mm-hmm. te yow yaa ko jënd mm. yaa tey jënd feebar mm. bi nga jëndee feebar sooraale wala sooraale nga danga jënd dee ku jënd dee dafa jënd xaru te ku xaru dugg àjjana te soo deewee te tuuboo am nga ñaari musiba musiba bi nga xam ne xaru bi nga xaru boobu moom directement safara ñaareel bi tooñ yi nga tooñ nit ñi balaa nga dugg safara da nga lay ak ñoom as ak as tuuti bi nga amoon ci yiw yu baax ñoo yiw yooyu yëpp dañu koy jël versé ñi nga tooñ mm-hmm. léegi su fekkente ne yaa ngi tooñ quarante nit wala vingt nit par jour ba mu am trois cent soixante cinq jours nga nekk ci dix ans est-ce que mun nga liggéey liggéey boobu mun na liggéey liggéey boobu kon mm-hmm. sawm li ñëw defar mm-hmm. dafa am solo mooy day defar jikko mhm. ci biiru weeru koor mhm. mais comme école la suñu génnee ci biiru weeru koor école boobu nañu gën a euh, euh, jëfandikoo lesson bi ñu ci jàng mhm. leçon bi ñu ci weeru koor nañu ko nafaraat ba beneen weeru koor di ñëw te yàlla rek xam kan mooy fekk si waat beneen weeru koor ndax damay wax toujours frein suy dagg du tàggoo chauffeur frein moom sooy lâché du tàggoo chauffeur bakkan suy rot du taggoo nit mën na ñëw saa su ne kon nag nit ki dafa war a fagaru mm-hmm. comme li ñu waa bëggoon wax rek comme li nga waxee imam Moussa mm-hmm. wéeru koor mu ngi ñëw mm-hmm. xalwaar mu ngi jege wéeru koor ñëpp invité ñu leen ci ndigalu suñu sëriñ Maulana Cheikh Mouhamadul Bachir ay waa ku dem foofu macha allah am na ñetti béréb am na néeg bi fi Cheikh Oumar gane si àddina foofu maxallul ijabati la am na jumaa fi mu doon jullee maxallul ijaba la am na néeg bi nga xam ne moom la doon def xalwa maxallul ijaba la su paree nag nga dugg ci wéeru koor nga gën a sa bakkan defaraat sa xol defaraat sa xel defaraat sa xalaat pour nga gën a nekk bu bu baax a baax a baax lu am solo la kon wéeru koor mu ngi ni ñu baalante ak ñun ñëpp politicien bu politicien nit ku mu munta doon mhm. nga nekk ci kaw suuf nga baalu ak ñëpp mhm. nga baal ak ñëpp mhm. su fekkente ne yaa ngi suuf Sénégal nag ñëpp benn lañu ñëpp dëkkandoo lañu ñëpp bokk bokk baay kon nag su saaf ñu joxante loxo ñaan yàlla yàlla nu yàlla gën a defaraat suñu xol suñu xel suñu xalaat ba réew mi gën baax ndax lislaam jikku la mm-hmm. foo jikku ju rafet amul rek dara du baax loolu moo tax maa ngi bon man duma politicien mm-hmm. mais maa ngi ñaan yàlla li président Macky Sall wax mm-hmm. bu dee déggale ci moom yàlla na ko yàlla dëgëral mooy defaraat jikku yi waaw moom insisté na ci defaraat jikku yi su jikku yi defaroo lépp lu ñëw day sakkan mais jikku yi defarul lépp lu ñëw du sakkan moy ci mbalit ñeek ci bureau yeek ci caisse biñuy biñuy denk wa <laughs> caisse yi sax ndax su jikko bi baxé même su fekkee da ngay jël du du bari dëggatul jël sax dëgg da ngay jël ndax sama benn mag neena su ñel dengé mbatu lem mhm. ñu ne na nga ci duggal sa lox mhm. diko seddelé nit ñi mhm li taxi sa loxo soo ci génne mm. doo ko dugal ci suuf mm. ma dan da ngay mar mm. mais fekkente ne yem nga ci loolu rek <laughs> alhamdulillah ndax kopp kuy liggéey ci mbir liggéey ci mbir mbir boobu wala war a jëriñ mais nag na nga ci ànd ak xel mooy mm-hmm. mm-hmm. li gën a bon rek mooy euh, euh, kii bi euh, mbattu mi nga kopp ko mm-hmm. mbaa foofu nga nga nga sotti lépp nga yóbbu loolu mooy musiba bi loolu de day xaw a jege sunu góor ga wax ni mm. tuddeeful ah. tuddeeful mm. yàlla moo ko bind mm. muy dund ci biir doomu aadama mm-hmm. yaa ngi kii de ay saanu ko jàpp waaye nee na moom it moom tuddeeful bu mu xër de nee na bu xëree rek boroom nandalu ji <laughs> te bu naanaloo këram tas. kon nag yàlla na yàlla may fekkee déwén. ak déwén yu bëree bëri bëri. maa ngi leen di sant bu baax di leen gërëm. léegi nag man dama am ay li ma doon liggéey fii. pareegu ma léegi ma jox leen pour ma mën a monopoliser wax bi. jërëjëf yàlla nu yàlla may ñu nekk dëgg dëgg dëgg julit. soo nekkee dëgg dëgg julit rek sa lépp baax na. ñu bañ yem rek allahu akbar asalaamaaleykum. koor ñëw ñu dem moor déedéet yàlla nu yàlla may ñu nekk dëgg dëgg julit mooy ku jikk jikkoo jikko jullit jafe jafe na nag ah. mais su yàlla yombale rek mu yomb yàlla na ko yàlla yombal bi jaaxee rasulullah sala ngeen baal naq nag bala ngaa dem ñu tàggala sunu benn doom allah akbar doomu alaaji Cheikh Tidiane Diop bu kër ngunta hmm. taawam la ñu di ko wax ma Diop est-ce que moo nelaw biig ci guddi ñu war a jóge léegi nii dem euh, Kër Ngunta denc ko fa ñëw fii dëjaat mm. ko allahumma xfir laha warhamha amin bi jaay sidna yàlla na ko yàlla yërëm te jégal ko yërëm mboolem suñu néew ايوا يدول لك ويدول مول بجلس انت جاهزين ممكن باه لك وباه لك والله والله والله كنا ليك مباي لك شيخ الحاج احمد تجان المكتوم ابرين ان شاء الله ان شاء الله اتر اتر آه، من يقول يقرم بباه باه باه سو وقتان ام نصر الله تبارك الله آه، والله آه، يو فوتو دا غاي دلو نيت ني ريك سي باه والله لولو واخلي تي والو كور كي خنا رك فتبارك الله كور موم دا فاي ديفر نيت لو ني ماي تي لعلكم تتقون دي لا تتقون بور مر رغال يالا رك ناخ كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون موم كور دا فاي ديفر نيت بور نيت كي رغال يالا تراغال يالا تي ليپ نك جيكو جينو وخ ييب ميغي تراغال يالا سكيت ndax koor li mu di def ci nit moo di li mu tasawuf bi di def ci nit mm-hmm. tasawuf du dara lu dul defar nit mm-hmm. defar jikko nit mm-hmm. parce que at mu nekk ngay lekk war naa am benn bés nga feet bokk tuuti daal eh, noppal si biir waaye lekk gi ci boppam dafa am lu muy def ci nit te moo di dafay tax ngay nelaw kuy nelaw doo mën a jaamu yàlla moo tax mag ñi daaw ñu lekk ba suur sallallahu alayhi wa sallam da ko daan tere daan wax ni kuy lekk na nga def sa lekk mu nekk ñetti parti benn bi nga lekk ko benn bi nga naan ko benn bi nga noyyi ko te al batnatu mukassilatu lil batn aw lil jism dafay tax nga nit nga teel te boo teelee sa julli sax dafay daw xaw day waar ba defee bokk na ci dafay wéral doomu aadama ndax mm-hmm. bakkan li koy dundal mooy lu neex mm-hmm. lu neex rek la bëgg mm-hmm. dafa ñu xañ la lu neex nag tuuti pour nga xam lu naqadi ndax muñ dafa naqati dëgg tax yi daan tax nit yëpp di def lu bon ci koor sañuloo ko def parce que boo ko defee sa koor yàqu yi nga toor koor liñ la ci tere yëpp boo ko bàyyee rek continuer ci rek lu baax rek ngay def parce que même sa soxna sax dañ la ko tere nga bànneex bi yàq doomu aadama mu lekk bokk na ca mm-hmm. naan bokk na ca mm-hmm. séeg sa soxna bokk na ca mm-hmm. <laughs> yii yëpp nga xam ni moo daan yàqal doomu aadama ba doomu aadama def lu dul loolu moom la yàlla indi ci koor pour bugg nit ki rek sell kon dafay sellal doomu aadama mhm. moo tax ba farataal nañu kenn ko firee bind farataal mhm. nañu mhm. aleykum ci yéen ma koor nañ ko farataale woon yonent yu jëkk yi noonu nañ ñu ko farataale ci ñun waaye farataal gi yëpp du dara du mu defar nu rek te mooy laallakum tattaqun ngir rek mu yóbbu leen ci ragal yàlla maanaam mu defar seen jikko rek bu ngeen am jikko yu baax kon ndëkkate koor fa nit yàlla yi daan jaar di def tasawuf di la defal tarbiya kon al koor dafay def tarbiya ci nit mhm. daf lay tarbiya ba nga ragal yàlla kon koor loolu la waaye ni mu ko waxee nag ci euh, niveau woor ay ay niveau la mhm. tere la na nitu yàlla yoo xam ne bés bu nekk bu ñu yëgoon ne xëy nañu suba ba ngoon defuñu fa mayuñu fa yàlla rek bu ko rogee koor la ci ñoom. allahu akbar bu ñu yëgee ne xëy nañu suba ba ngoon. jëwunu fa fenunu fa njaalowunu fa waxunu fa nit lu lu ko naqadi defuñu benn daal lu neexul yàlla rek. lu neex yàlla rek nekkoon koor koor ci ñoom koor lañu. koor nag loolu lay jàngal nit. loolu lay dafay defar nit rek yàlla soxlawul koor gi li mu soxla mooy defaru gi. nu ñu koy déggee kooru Mariama googu yàlla di wax ci alxuraan. yàlla dafa ni quoi. waaw. falan ukallimal yawma insiya. Mhm. te ni ko na nga woor ñetti fan te bul te bul waxante kenn. Mhm. parce que euh, wax kooru wax. koor ci wax woor ci wax kon ku wóor yàlla rek. kon ku wóor it war na bàyyi xel. waaw ay waxam. waaw idaa lam taku fi sam'i. Mm. إذا لم تك في السمع مني تصامم وفي مقلتي غد وفي منطقي صمت فحذي إذا من صومي الجوع والظمع فإن قلت إني صمت يوما فما صمت فما صمت وهيك يعني sa bët yi na لنا ko bayal. sa nopp yi lu la neex nga déglu ko hmm. sa gémmiñ gi lu la neex nga wax ko hmm. ne kon sa koor amuloo ci dul xiif ak mar waliyaazu parce que woor dëgg-dëgg ci wàllu xaqiqa mooy nga woor ci sa cër yëpp hmm. tànk yeeg loxo yeeg pay yëpp nga woor ci ba yëg ni woor nga ba loolu nag la woor di def ci nit ba boo fa jógee koor googu continuer moo tax woor dëgg dëgg dëgg yombul mm-hmm. waaw da ngay bët bu woor mooy mu bañ xool lu xaraam lu xaraam nopp bu woor mooy mu bañ déglu lu xaram lu xaraam gémmiñ du xa gémmiñ gémmiñ bu woor du caagee ne bañ lekk ak naan mais mm-hmm. nga bañ a wax wax lu xaram lu xaraam mm-hmm. pay bu xaraam ba pay bu woor mooy nga bañ a mooy yàlla ci ci pay bi loxo yu bu woor mooy nga bañ ci sàcc wala nga bañ ci di bind ay anonyme tànk tànk yu tànk dafay wor ko defee yooyu nag yëpp nag boo ko boolee mooy moom la góor gi doon wax léegi mooy mooy sawmul xawaas mhm. ak xawaasul xawaas nag kooku mooy nga nga nga nga woor ci an dunia wa an maddiyatiha lépp loo xam ni ci adduna la rek te neexul yàlla rek nga woor ci fa yef naa fu ma yef naa su ma yef naa fa kaana fanaa oo عين البقاء الله كون الكور دا فاي دفر نيت جولي دا فاي دفر نيت تنهى عن الفحشاء والمنكر واو لا يترم بولم يبون يري موم دا فلي يترم موم تم موم جولي باتي اج فلا رفس ولا, ولا فسوق ولا جدال ولا جدال في الحج اكو تزودوا فان خير الزاد التقوى والتقوى نيس كتب عليكم كي رقم من قبلكم لعلكم تتقون باسكو اي دو دار آه، خنا كون يوي ييب دا فاي دفر نيت خنا كون يوبول بوبو يالا دي نيو لاج تي اج آه. تي بير كور غي لنج كاي ليغي ييب ييب تي با تي بير كور غي كاي لعلكم تتقون لعلكم تتقون كون ني فك ام يوبول غلا دي ام يوبول فك يو سات nga باسكو كين دو ديم تي يالا تي يوبولو فو قلب سات يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم بقلب سليم انت قلب سليم بامد وتمنى تفتي تيري دار البن سكي جولك وورك ازكاك دمك يب يالا لم تي سوخلا موي nga defar سكي def بو defaro rek djubok يالا سكي موم دي دا فا ملني بوكو دي سيتلو فاني ويرو كور يي بو جيهي sunu borom dana bég ci jaam bi ba day woote ngan hmm? ñu war ko wuy ji nag hmm? ca dëkk ba nga xam ni fa la leeram yu sell ya dajaloo hmm? mu di fa teral jaamam yi ci ñi nga xam ne nag fexe nañu ba am yóbbul mat sëkk bi nga xam ni liggéey nañ ko ci biir fan yi weeru koor gi te moo ba ci biir aj bi sax waaw dana liggéeyaat encore ndax fa laa rafasa wala fusuqa wala defoon nga entraînement fekkoon defoon nga parce que egg ci yàlla yombul <laughs> <laughs> est que egg ci yàlla. yombul wallaahi wallaahi mu ne simmil sa yére yi jikko yu bon yëpp. Mm-hmm. nga mooy sa yére yi nga daan sol nii. Mm-hmm. armal bi mooy solol jikko yu baax yëpp. Mm-hmm. sangu bi mooy sangul mbooleem jikko yu bon yi. <laughs> est kër yàlla nga jëm. allahu akbar. astaghfirullah bala ngay dugg ci tariqa bi sax di di zikar astaghfirullah ngay jëkk foog nga sangu ko noppi. sañse sañse salaatul faatiha salaatul faatiha ñëw mm-hmm. yooyu yëpp boo ko seetee ñoo bokk benn benn benn hëdëf bi ak ak cosaan bi benn rek la mm-hmm. xam nga boo ñëwee di aji léegi eh, ñu ne mm-hmm. yére yi nga daan sol nga defee yére yi rek la déedéet yére àdduna ak yére jikko yu bon mais bu fekkee da nga summi sa yére yi nga yi te simmiwuloo jikko yooyu simmiwuloo rafas سميو له فصو سميو له في دافا بالك كي سميو له باسكو انت على ابراهيم بامو لك تي غارب تي ساس يا داف سمي ادم ادم يا داف سمي حمول تاخ مو سمي كو تصلو ونا مي ليك سمي مو لك تي غارب غا <laughs> كون كيس كيس صلو تدفر فسك فسوق summeeku na dëgg la moo tax ñu ne boo dee simmi sa yére simmiwaay la nag ñaari summi la bu xaqiqa ak bu zahir bu baatin summi yére yi waaye summi sa jikko yu bon yëpp maanaam rafas boo ko doon firi lépp lu xeetoo ci polo wala mooy lépp loo xam ne dafa dem ci ay mbóorante kafak ay kafak ay wax yu yu jaaduwul yu jaaduwul parce que kër kër yàlla nga dem dafa mel na ngay dugg ci yàlla rek mu kër yooyu yëpp ngay dugg ci jàkk waaw boo dee jukki jàkka lépp lu loo daan ay politique ak yëpp da nga koy wàcc sa buntu jàkka ja wa anna masajida la lillahi dong fala tad'u ma allahi bu ci boole ay rafas ak fusuuq ak bu dee bu dee fusuux nag mooy lépp lu bokk ci caay-caay caay-caay yeeg naka njaaloo ko ji te mën a yu bon yi yëpp bu dee ci daal waaw muy dàggit ko jaadil ko billati yaax sunu werante yeeg ñaxtu yeeg ñaxtu yëpp ku dem ci yàlla da nga koy dépassé te yooyu yëpp nag mën nañ ko ku mën nga ko liggéey sa ci biir weeru te jamono bi yëpp nag la la ko yàlla tere nag dafa da ko ci koor rek waaye nag koor yeeg yooyu entraînement la pour jamono yëpp nga mën ko bàyyi ndax yombul bàyyi moo tax ñu indil la nag jamono ay entraînement mhm. muy yooyu pour yow mi ko mënul bàyyi ci jamono yëpp. bu mhm. entraîné fee nga bàyyi ko. dëgg dëgg bu jeexee rek nga ànd ak melo ya. nga daal mhm. tax yonent mi ne man ku ku aj màkk te mënuloo bàyyi yeneen jikko yi nga amee woon dafa mel ne que ajjuloo. waaw ku defee nag loolu moom la sëriñ bi jàngale léegi. Mhm. tabaarakallahu wax ci waxtaan wu yaatu. moo tax dégg rek moo am solo. yàlla daal li mu soxla daal. jikko yu baax yi Sénégal ñëpp ngi wax naan jikko yi jikko yi mais jikko yi bu fee feebar la parce que euh, xol yi ci boppam fekk fajunu ko kon jikko yu bon yi du fi jóg déedéet kon bala ñuy wax jikko yi nañu waral jikko yi lu ko waral way ji koy xol yi ñoo feebar moo tax yonent bi sal allahu alayhi wa sallam yebal jibril ni ko إن في الجسم مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الكل ألا وهي القلب. الله وهي القلب. فيك خولي نيول نيول خولي بودانيول يلا دي خمسة يلا دي خمسة خول بو خام دي ري تانيك فوك ني دي ني فاج كو با خول ak woor rek dem màkk yooyu le mooy faj xol boobu ba yooyu dañ ci yam xam nga ñu mos bàyyi si kër bàyyi lal ya hmm. bàyyi lekk yu ñu naw ñu hmm. léegi simmeekul nga simmeeku ñu la sangul nga sangu ñu la léegi tarax laayul nga tarax laayul wallaahi xam na am na ñu boo déggee rëmsu boobule bakkan amu ca dara waaw bakkan la ñuy bëgg fomp xol la ñuy bëgg hmm. <laughs> moo tax wate sa wadu فإن خير الزاد التقوى واتقوني يا أولي الألباب يا أولي الألباب كل ما تي فوق نجي في نكو خيل مي نجي في نكو خيل بس كخيل في القرآن دفع أم نتي بعد نتي بعد يا إذا بين بوشنا كخيل كواي نمونا كخيل فوق نجي جانبو القرآن تدنا آه yaa ulil albaab tudd na xijrin qasamun lii di xaj xijrin xijrin xel la waaye tax ñu tudd ko xijrin mooy dafay dox sa digganteeg yow lu jaaduwul moom xel moo tax fekk yaa ngi nii am nga xel te lu jaaduwul sa xel mënu ko mënu mënu ca dox ba ngay def lu jaadu amuloo xel <laughs> يا ابن ادم اطيع ربك فتسمى عاقلا يونتبا ولا تؤسيه فتسمى جاهلا ما تخ تزور كيب كو خامي دني ام غا خيل تا خيل مي خيرم شيطان لا داف لي جيمي تي لو نيهو جال رك دنج لاي نخ املو خيل دغ لا لاي دوف ما تخ ني تودو كو لي لي اولي النها نها نها خدله نها للنهي صاحبه عن فعل ما لا يليق والله والله والله foofu xel alquran moo ko tuddee nuha bu ko defee nag ndax dafay tere boromam lu yellul moo tax fekk dañ ni am nga xel te mënulaa tere lu yellul rek ba tey amuloo xel barakallahu ah wal maktum fii ñu ñuy arrêté day tabarakallah waaw waaw gaa dugg journal bi waaw baax na incha allah nañ ko noté dañ koy noté dañ koy noté. Ah, tudd nga ci labib ba maanaam ulil albaab. ulil albaab tudd nga nuha. aql ba tey nuha aql mi ngi fi. waaw dégg nga xijir. xijir yëpp yooyu moom nañ ko noté. waaw ba bii di ñëw moom benn bu ci nekk par mm-hmm. benn. Mm-hmm. incha allahu taala ñu ñu ñu ñu ñu ñu mën cee dem leeral ko. waaw tey ba ci biir fanweeru koor bi ñu xam ni ñu koy liggéey. waaw ci biir koor gi nag léegi ñu ngi jëm ci koor. waaw xam naa wàllu ni sëriñ bi waxee sànq. ñi daañ ci waxtaan ci wàllu xeetu koor yi ñu waxtaan ci incha allah incha allahu taala jërëjëf ñang jazakumullahu anna xayran di ñaan rit imam alxaaja abdoulaye mbay xam naa daa nekk ca malaadam ba yàlla na ko yàlla saafara ah. bi jaahi sidina muhammad dafa am malaat waaw dafa am malaat bu muy taxaw yàlla na ko yàlla wéral sunu groupe 4 gi daal incha allahu taala liggéey liggéey lu am solo ci biir koor bi yàlla boole ñu nangul lépp ci daraja yonent bi alayhi salaatu wasalaam di tàggoo nag tàggoo bu dul tàggoo incha allah ba dellusiwaat ak jàmm wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.